alors yow da nga employé da ne Idrissa dafa am xeen ci Macky Sall ci Ablaye Wade ak Karim loolu santiir nga ko ñu bari santiir nañ ko mais man dama jàpp ne. Mhm. ay la yéwén ñu ma gisee Idrissa Seck nii man ak bi ma koy gis mujj gis man moom xam na man xam naa duma ko. wax dara du ko yedd da koy yërëm du koy ñaanal ndax la rek parce que d'abord euh, ku mel ni yow mere na ko ci loolu te merewu ko ci waru ko war mën mere yow sa yoon nekkul ci mi diggante sa Seck ak Abdoulaye Wade mm-hmm. sa yoon nekkul ci PDS sa yoon nekkul ci Abdoulaye Wade mais yow boo demee ba jàpp ne li muy def moom yow nga analyser haine la moo tax moom dañ ko war a ñaanal yàlla na ko yàlla defal sutura loolu nga ci mën a wax surtout